On est un peu partout en Europe aux États-Unis en Afrique du Nord mais j'en profite aussi parce que rendre un hommage à la diaspora j'en profite pour faire un coucou à toute la diaspora sénégalaise au Cameroun surtout à Yaoundé les premières réunions que j'ai eues nous avons organisé mobilisé tout le monde wax ma seeni problème yaakaar bi incha allah bu ñu yàlla dimbali dinañ dimbali waa diaspora bi accompagner leen ñu mënee une vie décente mën a ñibbi si seen réew mën a investir seen réew mën a am facilité wu dem ak ñëw loolu c'est un gros problème boo xam ne waa diaspora bi ñu ngi koy ñu koy ñu ngi koy euh, mais Oumy aussi dama bëggoon profiter pour aussi wax ci yenn secteur productif yi nga xam ni le jànkoonteel des problèmes les pêcheurs